lezina amanu kutiba aleykum siyamu kama kutiba ala lezina min xablikum lalakum tattakun loolu mooy or yàlla nga ko farataal ci ñun comme ni ko farataalee woon si xeet yi ñu jiitu ndax ñu jëlee ci ragal yàlla si fukki fan yu njëkk yi nekk nag mooy fukki fan yi ñoo wax awalu rahma yàlla mu ngi ñoo xool ñun jaam mi mu ngi ñoo xool buti yërmande dañ bugga nga baaxee ñu nag lan moo war nag si fukki fan yu njëkk yi nekk nii aoudu billahi sami alalim min asheytaani rajim ay surtout ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm di dalal mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan di kontaan ci programme bi ndax weeru koor yëppam yiw la bu fekkee ne nit ki dafa seet boppam ba pare seet li koy jëriñ toujours nit ñi bu ñuy tayal ci dara rek fekk dañoo xamut li leen di jëriñ ndax nit ay satu yàlla da ko bind mu nekk ku bëgg boppam maanaam nit ku bëggal ku selfish daal lañ mën a wax nee na nit ku dëgër bopp la waaye noo fi xubbil xayri la shadid nee na waaye nag ku bëgg aw yiw la soo seetlee àddina bi nit ku nit ku nekk bu yëgoon ne li ngay def lep sa bopp lay rek da nga guddeeg bëccëg doo noppalu. da nga dang dangi rek. da nga dang dangi rek. Mhm. waaye soo gisee nit di tayaar rek. nit nit xamut ne lu def boppam a tax. égyptiens yi dañu am benn masal. dañ ca ne yaamalil xayra war meel baxar ñu ne. defal yiw même boo koy ci gi. defal lu baax même boo koy ci géej nga def rek da nga def rek. Mhm. ndax boo ko ci géej gi benn mu taseeg yow wala nga rek du kon nit lépp lum def boppam a tax bu ko defee nag si Aysatu duñ mën a xam ngëneelu weeru koor ak it lan lañ war a def ci fan yu njëkk yi su fekkee ne xamuñ fi ñun nit fan lañ dugaloon suñu bopp ak dañuy yàlla buggee dimbale bañ génnee fu suñu bopp Aysatu nit dafa dugal boppam fu xat yàlla subhanahu wa taala bi mu nekkee moom rek تلنين نكون مصابك موي بند بند لب بند أجمعانك سوف بند بند بند جيجي دمنا بمن يقو من إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يالنا من لم نيخ بند عالم الناسوت موي عالم بين قبنتني عالم سبب لا سبب لو أم da ngay ñaq tedd jëf jël yàlla ne man maa tànnuloo asamaan ak suuf ak doj yi sañ-sañu ma wax ñu weddi ñoom ñu ne ma déedéet yàlla loolu ñun duñ ko jël inna arat naa man maa ofa jox asamaan ak suuf ak doj yi yàlla ñoom la tànn ñu gën a rëy ay melentaan yeeg ay gëlëm yi dañoo tuuti waaye asamaan ak suuf yàlla ne xanaa ñoom li am si doole danañ am kattanu ma jox leen amaana amaana mooy ma wax def leen nga am sañ-sañu ne du ma def inna aradna al amanata ala alsamawat wal ardi wal jibala fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha ñoom ñu ne déedéet yàlla ñun daal loolu duñ ko nangu ñun daal nañ nekk rek ay machine loo ñu wax ñu def loo ñu tere ñu bàyyi mu ne wa xamalaha al insaan insaan nit moom tollu fa rek ne yàlla jox ma ne yàlla man jox ma maanaam maanaam maanaam maanaam du dugal boppam tuuma joo xamante ne ci xat-xat boo xamante ne bu ko yàlla dimbalewut du ci génn mukk maanaam nit rek mooy toog yàlla ne la defal nga am sañ-sañ ne du ma def xool yàlla rek ak li am ci doole nga xamante ne benn guddi benn waxtu mën na cee faagaagal lu ne bind la jox la ngelaw jox la wërsëg nela defal nga ne du ma def nga ne yàllanka loolu la asamaan ak suuf wax ne ñoom ñemuñ ko ñemuñ ko jël suuf ne du ko jël asamaan ne du ko jël. doj ne duma ko jël yàlla ne jox nit moo mën a jox ma. <laughs> nit ñeme moo ñeme moo tax mu ne. <laughs> moo tax yàlla ne wa amal iza innahu kaana zaluman jahulan mu ne moo tax nag ku tooñ boppam la. ba pare ku réere la mbiram mi la. parce que kilifa gu toll ni yàlla. <laughs> loolu nag bañ ci duggee te yàlla sopp ñu loolu ay sëtu. Mhm. yàlla sopp nit. ndax daf ko def mu niroog Muhammad. te yàlla sopp Muhammad. Mhm. ndeysaan ci bopp ba ci tànk ya ci loxo ba. képp ku mu Muhammad rek doy na teraanga mhm, yàlla nag xat-xat boobu ñu digal suñu bopp yàlla bugguñu cee génne mhm. bëgguñoo defal ak teraanga ëllëg gannaaw bind na nit nag def ko mu nekk ruux ba pare mu nekk body maanaam mu nekk nit koo xamante ne daf koo bindee ci suuf mhm. lépp loo xamante ne ñaawteef la lépp loo xamante ne bànneexu bakkan la loolu dañ ko mooñaaleek suuf si moo tax suuf di xëcc nit yàlla it bi mu bindee nit ci suuf jël ruuxam wal ko ci nit ruux googu mooy xëcc nit jëm ci kaw lépp luy loo xamante ne fadila la muy ngëneel la ci wàllu lewet ci wàllu bokk ak nit ñi ci wàllu tabe yooyu mooy yi nga xamante ne moom la ruux bëgg moom moo lay xëcc jëm ci kaw nit nag ñaar yooyu seq ko suuf di ko xëcc jëmale ci suuf ruux di ko xëcc jëmale ca ca kaw mhm. fekkee ne muus ngaa muus a muus ba ba suuf gën a baax malaayika boo defee boo demee ba nga xamante ne suuf lim lay oo ci ngay mer di lekk te doo doyal di naan te doo doyal lépp lu neex fu naan neexee fu lekk neexee fu jigéen rafetee nga topp kooku moom ku ci dëkk ci suuf rek nga jëm bu fekkee ne nag muus nga ba nga xamante ne yàlla notal na la loolu nga xamante ne mooy ñaaw teef yi moom la ñu ooy arradail bu ko defee li xëcc mooy asamaan bu ko defee da nga nekk di màgg di màgg di màgg jëm ci asamaan ba gën malaayika moo tax nit nekk ci diggante bu xata xata xat boobu nag moo tax égyptiens yi bu yàggoon amoon nañ ci seen xalaatkat yi te balaa ñoom it am na ñu daan xalaatee noonu ne nit lépp loo xamante ne bànneexu bakkan la bakkanam mooy kasoom bakkanu nit mooy kas bakkanu bànneexu bakkan mooy kasuk ruuxam nit dafay dema dema dem ba ruux googu bakkan tëj ko tëj ko ba wàccee ko ba ci suuf ba mu gën a suufe mbaam moo tax alquran wax ko kal an'am bal hum adal dañuy dema dem lahum qulubun la يعقلون بها ولهم آذان لا لا لا لا, لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل يلا لين دمال لين دفل بيت بور نيسي غيس لو باخ ما دفال لين نوب غير نيسي دغلو لو باخ ما دفال لين خول غير نيسي جيل ليري واي دانيو ديم با يوي ييب اماتو تي نيوم نجيرين غير لي سوف دي ساكو سينيوم تي نيوم نوت نالين با خيتلين سي سوف با خامتاني مبام لين تاري نداخ مبام موم امول بكار ku mbaam tane kon kon doy na waar mm-hmm. ulaayika kal anaam bal hum adal su fekkee ne nag muus nga ba li sa yaram wi sàkku nga nga rëccu ko maanaam suuf mooy kasuk ruux sàkku sàkku bànneexu bakkan mooy tëj jëmm ba nga xamante ne jëmm dootu dem fenn dootu jege yàlla boo demee nag ba nga xamante ne nacc nga jëmm bañal ko li muy sàkku ci lekk yu neex ci naan yu neex ci jigéen bu moomut ci mer ci na ci rëy yooyu yëpp yow nga fexe ba notal ko sa bopp bu ko defee nag da ngay tukki ba nga xamante ne suuf dootu mën ci yow dara hmm. bés boo xamante ne loolu jot loolu loolu mu ngi ci yow àddina ci boppam moo lay topp te dootul la jot hmm. bés bés boo fi jógee àddina di jooy te dootuñ mën dara am na ñoo xam ne nag bés bu fi jógee àddina day ree ba kekku hmm. ndax jekku na leen ba pare ki nga xam ne nag ay surtout moo nekk ci diggante boobu te yàlla bu ko dimbale yàlla nag defal ko stratégie bu ko yàlla bu dul moom mu ñaaw ay sutu mm-hmm. bu dul moom mu ñaaw moo tax mu ne nasawullaha fa ansaahum anfusahum ñi nga xamante ne dañoo sàtt fàtt yàlla yàlla fàtte leen mm-hmm. boole leen ak seen bopp ñooñu kooku yàlla leen boole ak seytaan bi nga xamante ne nag yàlla gis na ni ñun ñu ngi nuróog te ndeysaan mu yéene ñu jàmm mm-hmm. yàlla bu ñu doon yàkkam bu ñu doon yàkkamtil aw ay tey ñun ñëpp dañuy dem safara waaye mu ne ndeysaan moom daf ñuy istijaal xayr moo moom maanaam aw yiw la ñu yàkkamteel ndax nuróoguñu nuróog yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yonent bi nekk xaritam lool lool lool mm-hmm. yàlla nag ay sa tu tegal ñu programme ndax bu dootoon nag moom mu ñaaw mm-hmm. liñ fi tudd léegi mm-hmm. ci aaya boobu muy oor amut ci jaamu yàlla yi lu gën a am solo oor ci mu teqale suuf ak li muy sàkku maanaam suuf li muy sàkku ci nit ki mooy nay mer yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na ci moom ne ko doo ma digal loo xamante ne te nag bu sa wax gudd yonent bi dama bëgg nga digal ma lu am njëriñ te bu mu gudd mu ne ko laa tax dab bul mer bul mer waaw mer dafa garaaw dafa garaaw mu ne ko ak lan mu ne ko laa tax dab mu ne ko ak lan mu ne ko la mu ne ko bul mer bul mer bul mer parce que mer moom la saytaane gën